Euh, ni ñu koy defee ak yéen rek saa su ne di dalal ay ndaanaan waaye tey nag ñu toog ak ndaanaan doo xamante ne dootuñu ko présenté sénégalais muy suñu frère euh, Lamine Golo sénégalais nag xam ko digganteem ak ki nga xamante ne mooy la grand champion bala Gaye numéro 2. ni ko noonu tey rek dañu ko dalal fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moo di làmb le frère Lamine am nañ mbégte bu baax a baax a baax dalal la ñu bàyyi rek nga ndokk bokk internet. asalaamaaleykum maa di siyaar bu baax di baal ñëpp. maa leen nuyu bu baax. di nuyu monde entier. di nuyu Sénégal rawatina géejawaay gi nga ma fekk. rawatina fii si buntu sama liggéeyukaay muy Lamp Fall. macha allah ñu nuyu bu baax a baax a baax ñi nga xamante ne aussi moo di Fatickine euh, Lamp Fall ni ñu ko waxee rek euh, ci lamp bi mën li nga xamante ne euh, naka nga jàngatee jamono ji ci li nga xamante ne mooy fi lamb toll. sénégalais ñu ngi ko doon xaar ñu xëy déggu ci yàqu-yàqu ni mu yàqoo en tant que un coach boo xamante ne yaa ngi ci lamb naka nga jàngatee lamb léegi. ñàkk ko métti lu ko ñun ñëpp lu bu baax. ndax wax dëgg yàlla lamb mooy suñu sport am ndax fi yàlla dañuy sabab ne ak di ñaan. yàlla suñu borom mi nga xam mooy borom kàttan mooy borom mën na mhm. yàlla yàlla nañu kàttanal Sénégal bi ba jàmm am ci lépp am ndax jàmm ñun rek lañ xam xamuñu leneen mhm. bañ juddoo suñu ndey suñu bàyyi ba léegi mhm. suñu fekkee fi coono am xamuñu coono kon lii liñ naan li olof ñaan naan lii raam si ñag bi la jëm ñun nañ ñaan ñun jeunesse bi ñun xale yi di ñaan réew mi jàmm am fi ñu nag continuer suñuy activité lamb nag mooy suñu sport national waaw te lii si am ñun ñëpp boobu ba léegi lu yëngu rek ñu aj làmb mm-hmm. lu yëngu rek ñu ñu aj làmb lu yëngu rek ñuy def journée yoo xam ne nii mm-hmm. promoteur ñëpp xam ne loolu ne ay jeunes lañ mm-hmm. te seen i million def ko si benn a mais chaque jour da ngay fay rek ñu te làmb baax kon mm-hmm. nañ mm-hmm. suñu liggéey mm-hmm. ñu nekk suñu façon muy wax di ay jéego muy wax waaw faaw euh, euh, activité yi nga xamante ne mi ngi nekk ci Sénégal mais ni ko ngay bàyyi xel à chaque fois lamb la ñuy bloqué ndax ñu bëri dañoo jàpp de lamb business la boo xamante ne li muy créé ci violence wala ci yenn affaires yi dafa bëri loolu nag nga koy déggee. non football bi moo ëpp violence foofu. Mhm. yaa ngi gis semaine bële passé GCD Jaraaf fii Ndiaye. waaw toj nañ la dégg ko. Mhm. léegi violence làmb day ko dégg rek def mais génnuñ si biti ne ñu ngay agressé wala ñu ngi yàq ñu ngi def dara. Mhm. nañ ñu bàyyi sunu làmb rek nga xam ñun moom lañ am. duñ si dimbali tuuti quoi mais violence man gisuma ko si làmb amu ci quoi man bi saison bi ubbee ba léegi. booy am na léegi beneen esprit bi ñu yor mhm. ndax yaakaar naa ne mbëri ñuy dar yi leen di indi stade ñu ngi di waxtaan ak ñoom mhm. te yu bëri ñu ngi mhm. euh, yi nga xamante ne mooy que les combats yi nga xamante ne à chaque fois sénégalais euh, moom lañ daan xaar ci lamb ren euh, daanaka buñ ñu nee combat VIP yi am na dañu koy compter ñu ci bëri ñu ngi doon xaar dañoo dem ba dernier moment bi seen lamb yàq ñu bëri nag jàpp ne xëy na ay événements yu ñuy politiquer moo tax journée yooyu demul ban dégg ngay am ci loolu. non métti torop mooy la neex ndax làmb moom léegi muy làmb mbër mu ndaw maag mu mag maag mhm. léegi xoolal ñaata combat mbëru ndaw ñoo am mbëru ndaw amatul. Mhm. ndax mbër muy dem bay fayee ko million rek ndax ndawatoo ko. dëgg mais li ma bëgg mooy nañ ñu bàyyi suñu làmb rek comme ñu naan VIP yi tamit yow gis nga li si am tey jii da gis ñu ngi préparé seen i combat. waaw dugal seen i médical. ñoom ñooy yàq seen i journée mais kenn ñoom ñooy yàq seeni i hmm, journée. waaw ñoom seen journée tombé ak benn yoon affaire yi am. waaw. maa ngi. waaw seen hmm. journée. tombé wut ak benn yoon yi hmm. nit ñi dañu ngay déggee ñu bëri. yenn politiciens yi ngay ñëw di jënd journée ngir bañ mu am loolu nanga ko ngay dégg non loolu ay rumeur la rek xam man moom damay waxee ak ton boo xam ne ni ak di doxee noo xam ne lu ma wóorul du ma ci bëgg di débat mhm. mais su ma leeroon wala mu wóor ma xam si dara damay toog fii wax ko ne dëgg la mais wax dëgg yàlla loolu ah gëwuma ko quoi. Mhm. du ma ko weddi 100 pour cent mais gëmuma ko 100 pour cent tamit. gëmoo ko 100 pour cent. Mhm. Euh, à chaque fois wax làmb euh, facteur de développement la ci di dimbali jeunes yi. wax nga ko mhm. sànq waaye bëri na ndaw yoo xamante ne ñu ngi jooy ci làmb ngi bëgg a wan ginnaaw làmb ndax bu ñu xoolee mbër mu ndaw mu fayeekuwul lu matul million jël plus de ay million def ci làmbam toog xëy suba ñu yàqu dundam ndax jeunes yi dinañ amati courage yaakaar ci làmb. ah gisoo Sénégal léegi fu mu toll ñaata jeunes ñoo nekk nii di dem si géej ngi dem di jël ay risques yoo xam ne mooy loolu. Uh-huh. xoolal États-Unis gee ñuy dugg tey war nañ ma image yoo xam ne ñaata sénégalais ñaata uh-huh. africain uh-huh. sénégalais ñoo fa ne amuñu sax fu ñu nekk si mbedd yi la yi la fanaan policiers yi di leen def amaan noo xam sa yaram day daw mais ñëpp rek dañoo bëgg a tekki rek xëy na dimbali waajur yi gis nga su ma ko waxee su ma ko waxul dëkk bi dafa métti fi torop torop dëgg la rek su ma amee rek xëy na lépp na lépp rek jàmm moo ko lal mm. nañ ñaan dëkk bi jàmm amaat fi mm. ba nit ñëpp mën a delluwaat seen activité mm. ndax tey jii dëkk da loo xam ne ni tey jii li ñuy xeeb nii di xëy di tëj station yi ak oto yi transport bañ a dox loolu day rey économie dëkk dëgg la wallaahi dëkk bi fi ne ni loolu moo ko rey loolu loolu ñuy xeeb moo tax ceeb bi yokk diw li ñu yokk ak yàq yeeg ak yooyu yëpp mën nañoo xeex neneen xeexee noonu nii mais tamit mooy loolu wax rek yaakaar ne si domaine politique ngay waxee. wala dara mais métti na daal métti na ci kër Imam Ali yaakaar naa ne kàddu yooyu am na solo lool ci li nga xamante ne aussi moo di waxtaan bi ñu dalal suñu frère euh, Lamine euh, Golo sénégalais xam ko bu baax a baax a baax waaye nag euh, dafa am loo xamante ne nag mbetteel la ñëwee ci askan bi ah. ñu bëri xaaruñu ko woon sa doomu ndey am nu mu defaatee ak retouram bu doy waar muy Kandji Production taxawal journée bu doy pou mm-hmm. fils de Balla Lac lan nga ñu mën a wax boobu. waaw maa ngi koy nuyu au passage. di ko nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm. ju hmm. taw ju sax. waaw kañ moom tey jii mën naan tey jii xëy na kañ production tey jii coow li borom ETR ñu bëri dañoo jàpp ni moom la. Hmm. mais làmb ñi si nekk ñëpp ñu ngi si ginnaaw. xëy na moom dafa dajale ay jeunes yoo xam ne nii. Hmm. pour dimbal leen pour jàppal leen di leen dugal mais kañ dafa yor liggéeyam. yor métier ndax entrepreneur ñëpp xam nañ daa métti mënoo koo boole tëggay làmb. mais xëy na waxtaan na si. ak ay nitam ñu doon staff boo xam ne ni bu am doole la sax xëy na kànja la si gars yi séentu mais ñi si nekk sax. si mm. ginnaaw moo ëpp. Mm. moo ëpp mais tamit lépp rek li muy def rek moom dafa bëgg a wan ne rek rek moom réew mi moo ko ñor. Mm-hmm. réew mi moo ko ñor jeunesse bi moo ko ñor te li muy liggéey si réew mi la koy def. Mm-hmm. te Kandji gis nga ko mu ngi sponsorisé làmb ji. wallaay dëgg la boobu ba léegi mus Kandji mus sa bàyyi làmb. kàmb Kandji mus sa wan ginnaaw làmb ndax ñun ñëpp gis nañ heure boo ñëwee noonu comme ni ngay ñëwee gis nii suñu parti nii que lampe posteer mi ñu ngi si borom ETDR. E promoteur bu dugg journée am dugal ci ETDR dugal ci ETDR. Mm-hmm. kon ñu ngi koy ñaanal lim si bëgg. Mm-hmm. yàlla sunu borom defal ko ko. Mm-hmm. fils de Balla Lac Rose lamb la ju kenn xalaatul woon. bu bett ñu baree bare. maa ngi koy doy na waar non doy na waar mais di ñaanal fils de Balla ndam. bu sedd guy guy guy guy. Mm. seen xel dal na ci moom ak Lac Rose. amul leen lu ngeen ko ciy tiital. non fils de Balla du bëri may tiit loolu yàgg naa koo wax. ndax la parce que nit ñi ñoo ko xamul mais man mi ko yor. Mm. xam naa kuy fils de Balla boo koy xool lañ nga gis ci moom. lépp mbër mu complet la ku am jom la ku am fulla la ku mën géew la te du tiit du raf. Mm-hmm. Mm-hmm. gis nga ko ci moom. gis naa ci moom lépp Fils de Balla rek. mu mm-hmm. nekk 100 pour cent ñëw rek arbitre sifflé. billaay walaay ba mu daj mën naa ne kenn mënu ko si. loolu ku ma oh. tegaloon kaamil ma war. parce que gis nañ deux sorties yi nga xamante ne moom la mujj def ndaanaan li mu daan. Euh, général Malick Gora Sock ñooñu xalaatuñu woon leen sax ne dina dina di yegg ak ñoom fenn. dina daanaan ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñëpp dinañ la xalaatu ko. parce que mooy li ma la wax da ngeen koo xamul. mais man xam naa ko bu baax du bëre mukk may tiit. Hmm? Mhm. Lac Rose nag daanaan la de. déggoo li ma la. Hmm. école de lutte Balla Gaye dama faa yor ay produit yoo xam ne nii suñuy bëre man damay santi sama bopp à l'aise parce que xam naa leen. xam nga leen waaw bu baax. doo euh, dem ba jour ba di tiit wala ngay am xel ñaar. non non non non du a de Balla kese mënoon naa lim nag mais li nga tudd Fils de Balla. Ah, rek moo ci la ñuy wax ni mais Fils de Balla daal li ma koy def mooy di ko ñaanal. yàlla na ko yàlla lafal cat. Mhm. may ko wér ak tan mhm. ba mu mën a gën a continuer di nekk si ay mbiram rek mhm. yàlla baax na daal bokk na ci yaakaaru géejawaay ah mhm. macha allah ñu koy nuyu bu baax a bari na yaakaaru géejawaay dafa bari fils de mu ngi fi ñaamu ndaw mu ngi fi caat bu waalo mu ngi fi caatu daaw da faal waaw marle waaw su may lim su ma doon lim sama xarit macce jug ay macca sama ñoom Youssou Ndour mu père Balla Gaye numéro un <laughs> ñoom Gàkko deux géejawaay bëri na ay espoir yoo xam ne tey su ma ko doon lim du ma ay safara yi ngay dégg yëpp ay espoir u géejawaay ndax gëm nañ ko bëgg nañ li ñuy def mhm. bëri nañ ay mbaytin numéro un numéro deux bi booy yi ñoo fi bëri bëri waay boo xam ay bébé garga bëri nañ ci bëri waay boo xam ne su ma doon lim doo ay caat bu waalo di leen ñaanal yàlla lafal leen cat rek ci lii ñu nekk ñu gëm ko rek mhm. te xam ne géejawaay soxna relève macha allah mhm. géejawaay soxna relève waaye euh, ginnaaw li nga xamante ne tamit euh, def na ko fa yi passé suñu frère fils de ñu tamit moom la doon def euh, waaye après dafa am tuuti polémique bu ci ama ah, gis nañ ko mu génn def ay révélation ci nga xamante ne mooy euh, Balla Gaye 2 seetaan nga ko bi ko déggee ban jàngat nga ci am. fils de Balla maa ngi ñaanal doomam ji nga xam ne moo juddu barki démb moo njaay. Mhm. di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may wér. Mhm. ak gudd fan. Mhm. te mu dem ba. yaayam di ñaanal tamit mu dem ba màgg. ba yaayam ak papaam fekkee njariñam. amiin amiin amiin loolu rek laa koy ñaanal. mais tey jii fils de Balla da nit koo xam ne xëy na daa am lu ko metti rek. Uh-huh. mu toppee toowu xale waxee waxi xale. man mii di wax ak yow dama part personnel ba ma toogee gis STM gis muy préparé moo lu TV pour laa ko wooyee ba mu ne ma naan ma ni ko bàyyi sa yi ngay def man d'accord ma si émission bi. mais boobu man maa ngi sama liggéey mënu maa taal sama oto dem naa ba woo magam papi soo toogee. Mm-hmm. ne ko waxal ak Aziz mu bàyyi yii muy def. Mm-hmm. man wax naa ci ba sonn. mais man bi ma koy woowaat di ko wax fekk na mu def émission ba pare ndax bi muy dugal stade bi ma koy gis naka da def na émission ba pare. Mhm. man ma taxaw ne ko baa waxoo fi erreur booy mu ne ma noo waxuma fi benn erreur wax ay waxam. mais bi nga ko seetaanee. bi ma ko seetaanee gis naa. mais lépp tamit da ngay xam si ton wu xale la rek. man jàppee ma ko bi daal wax naa ko nag li ma ko war a wax yëpp. mooy àdduna bi amul solo. fii nit ku nekk yaa ngi doxee loo xam ne dalaa metti te du fii ngeen koy wax man chaque jour dama leen ko nee leen média su fii laay xuloowee wala di si laay waxee li ma metti c'est que ndax média dafa doy waar. da waxee ton bi nit ñi ñeneen ñi gisee ton bële. moo tax tey jii amaana am na lu ci mënti xew rek. war ngeen koo mën a lijjanti woo ki nga war a woo waxtaan ak moom ci li la metti mais pas ngay toog fii di wax yooyu nangam ak sangam gis nga ay ngénte ay dëj ay mariage yooyu yëpp mënoo cee xam sa nit xam nga kan ngay xam sa nit hmm. tey ji yàlla ñaanuñu ko yàlla tey ji caabi féete woon la ginnaaw hmm. ku la fa fekk rek jàppal ni sa nit la la mais am na yu bëri yoo xam ne yii ay mbiru àdduna la rek hmm. man de dama part personnel su ma xew la woon ak lu mu mën di def su ma ko yëgalee nit ak su ma ko yëgalul nit jàpp naa ne ku ko dégg yëg ne Lamine mii kat day sonn yàgg naa sonn sama bés. Mhm. yàgg naa daj ay coono daa war a ñëw sans autant même su ma ko wax. dëgg la dëgg mais am na yu bëri yoo xam ne amul solo Fils de Balla dama koy conseillé na xam ci làmb la ne na góorgóorlu. Mhm. jéem a ñafe. nekk suivre carrière la moo gën a moo ëpp solo détails yi mu nekk quoi. Mhm. man man yii dama ko jàppee c'est des ko quoi. da ko jàppee ay détails. Mhm. waaye mu nekk tamit loo xamante ne tamit bëgg nañ ñu ko waxtaanee tuuti ci ki nga xamante ne moo di Balla à chaque fois critique yu mel nii li muy dal ci kawam dafay bëri yow mi ko jege naka ngay déggee yenn kàddu yi nga xam te à chaque fois bu kii critiqué yàggul dara kee génn du yàggaat génn keneen wax lan la la mooy problème géejawaay. xam nga tey jii mooy comme li may rek man géejaay gisuma fi problème ndax jàpp naa ne ku si nekk yaa ngi nekk si li nga war a nekk. Mhm. ndax man ni ma jàppee sam bopp rek laa jàppee ni ñëpp noonu lañ mel. ma bëree dégg ñu naan yëgul nit ñeneen ñi lay demal du demal waa goxam yéen ñi fa dëkk ngeen di dégg loolu. xam nga nit image bi ngay xool ak li ngay bàyyi xel nit tey jii dama la nit. waaw tey jii looy xool si nit ki rek loolu ngay gis chaque jour. dëgg la nit ki looy xool chaque jour loolu ngay gis. tey man mii am na yu bëri yoo xam ne du ma ko xool si nit ndax su ma ko xoolee rek damay gis loolu mm-hmm, mm-hmm. moo tax au lieu de loolu mooy li may wax booyi rek chaque jour dee leen fexee di nekk seen bopp nekk sa bopp rek moo wóor mais tey ji yi ñuy wax noonu yëpp si mbër mi yooyu yëpp man dama jàpp ne amul solo ko ay détails la mm-hmm. ay détails la ndax man mii ànd naa moom ay at ku la wax ni tey jii li ma ànd ak moom yëpp yàggumaa def lu ma metti su ma ko waxoon fi sax ngeen ne du dëgg ndax nit moom sooy moom chaque jour tey jii su fukk neexee jàppal mën na la def juróomi mètre. mais dangay soor sóor ni démb neexoon na. kon tey su mettee rek bu mu la tax di wax. mais daal li ma mën a xam ba xam daal mooy amul solo. te nit ki tamit yow yaay xoolaat sa bopp rek ndax tey jii mënoo taxaw ñëpp naan nangam nangam nangam nangam ñëpp mënuñoo àndandoo bokk di fen kon li tubaab naan réguler pour mi mieux sauter. xoolaatal ñi nga war a jàpp. jàppaat say nit. ndax man mii lu mu métti métti xam naa samay xam naa ñi ma bëgg yàlla tax xam naa ñiy ànd ak man ngir. tur xam naa ñi nga ànd ak man ngir àdduna mais am naa nit ñoo xam ne ni dama leen a jàpp te yàlla tax gëm leen te yàlla tax mhm. ñooñu samay nit lañ mhm. mais àdduna nag dafa doy waar quoi li may wax rek naan àdduna yàlla ko moom mhm. àdduna yàlla rek moo ko moom kenn moom ko ku yaakaar ni yaa ko moom rek nax nga sa bopp yàlla rek moom moom àdduna eh, Fils de Balla ci wax ji eh, nee na li ci gën a métti mooy eh, li muy ànd ak Balla boo déggee Fils de Balla xam Balla Balla xamul buntu këram yooyu dañ koy dégg ci mbër bëri na de la non su ma la waxee benn affaire ànd ak mbër a gën a metti gis nga ba ci fils de Balla moomoo mhm. ñoom ñëpp ñoo am ay façon waaw nit nag su amagulee bu doo ko jugé nit su amagulee dëgg. Mhm. bul ko jugé. kon li ñuy wax dafa am jikko boo xam ne jikko mbër spécial dafa nekk si jikkoy mbër spécial la. muy fils de na dañoo dem ba toll fi ñu toll wane seen bopp. mais ñoom tant que demuñu ba toll fi ñee toll. Mhm. du ma leen jugé dara. ndax ñoom ñëpp amaana sax léeg ñu def yoo xam ne nii mooy loolu. doo si mën a wax. doo toog mosoo toog rëcc wala nga regretté ne suñ bu démb doon tey dama ànd ak waaw dund nga ko. Mhm. lu tax. billaay wallaay ba fii may waxee yow damay toog naan su démb toon tey du ma bëgg sax làmb man xam nga yow waxi mbër nga yow. Mhm. làmb sax laa dul bëgg. ndax da di sport bu compliqué. Mhm. sport boo xam ne neexul. neexul dara. neex na nii soo ko bëggee nag bëgg nga ko comme ni ñu ko yàlla na toog mais sport bu doy waar la. mais man de su démb doon tey du ma bëgg làmb du ma bëgg mbër du ma xam mbër. tey jii nag xëy na su ma demee tey jii ba ñëpp xam dama koy sante xëy na làmb moo tax nit nag ak lu mu métti si activité bi nga nekk su bul ko xalab cent pour cent mais dafa métti soo déggee may wax du lu bon du lu dara mhm. mais da di sport boo xam dafa bëri ay gàllankoor quoi bëri ay waxante mhm. ay jëfanteeg yooyu mhm. mais tamit lépp amul solo rek nañ xam ne rek ak lu mënti xew rek si àdduna la yem nañ xam ne ay làmb ak ay football handball baag basket baag yëpp mbiru àdduna la rek. Mhm. Mhm. damay faral di dégg ñu naan xaritu milliardaire milliardaire la mbëri ñu si bëri VIP yi ñu ngi sant macha allah. Mhm. kon ñi jege mbëri ñoom it ay VIP la ñu ngi sant. man de dama part personnel VIP la ah. mais gis nga li may dawal nii. xam nga lu ma ko may. sama liggéey. dugal ci làmb man làmb fayu ma. làmb fayu ma man li may daj si làmb yëpp mhm. làmb fayu ma xam nga lan laa su ma xëyee damay yeewu sangu ba set liggéey yaa nga ma fekk fii foo ma fekk si parking mhm. ñaata heure nga ma woo mhm. te boobu maa samay business léegi laa gaare si buddu parking bi ne la këwal guddi na heure bi mais lu munta ñàkk la man lii moo may may man de xaw ma de xaritu mbërëg ak mbërëg yooyu yëpp noobul nga ak yooyu mais man daal lu ma am sama business moom ma ko may wax dëgg yàlla. waaw sama business dama ko. Euh, tawalal nañ moment boo xamante ne ku ne Lamine leen rek ngay wax coach Balla Gaye bi nga déggee Balla ne Lamine suma coach amul lu mu wàññi ci yow ci làmb. non wàññiwu ma dara. Mhm. wax dëgg yàlla su yàlla taxee ñëw rek wàññiwu ma dara dafa maa gën a faf motiver quoi. te loolu mu wax dama koo nangul moom dëgg la yéen Balla Gaye li mu wax li mooy li may wax rek nit ñi ñoo fi nekk di ko yokk ko guddal ak yooyu maa ngi moom dañoo bokk ñu tàggat. Mm-hmm. muy père Balla Gaye moo ñu tàggat. def ko li mu doon def ko li mu doon def ma li ma doon. man kenn defuma li ma doon baay Balla moo ma def li ma doon moom rek laay roy. royuma keneen si làmb nii. Mm. Baye Balla rek laay roy si kàddoom si ay jëfinam ci léppam. Mm. ndax lu mu mës a wax rek mu ne leen yéen ñëpp fii yéen ñëpp mënoo leen nekk mbër ñii dinañ tukki ji ñii dinañ nekk ay manager ñii dinañ nekk promoteur ñii nekk entraîneur ñii jaay ñii def li te Baye Balla lam ñu daan wax yëpp moo am tey maa ngi koy ñaanal fu mu tëdd si suufu yoof mhm. yàlla na oyof si kawam yàlla xaare ko aajana mais Baye Balla monument la ak symbole boo xam ne nii mhm. lépp lu mu ñu daan wax xaw ma kan de ku ko bàyyiwul xel mais man lu ma daan wax dama ko maa ngi koy gis nii mu ngi sama ma koy teg mhm. yaa ngi koy gis kon Balla Gaye su toogee ne man du ma entraîneur am loolu dëgg la. dëgg la euh, yan conseil la ñuy tey ci ki nga xamante ne moo di Balla lan nga koy mottali ci. non aw ma lu a ko mottali ndax moom mën na lépp. Hmm. wax dëgg yàlla ah, ko ñaanal jàmm. Hmm. ak sutura li mu bëgg si àddunaam moo ko xam yàlla na ko yàlla defal. macha allah lépp lu nekk si xolam ak yéeneem. Uh-huh. yal na ko sunu borom mottalil. Hmm. si barke alxuraanu karim. ndax lii may wax nii lu ma gëm la. macha maa ngi koy ñaanal bu baax a baax kenn lu bon. man aw ma kenn ak problème mais essentiel. tey soo ma defee lu ma mett lu mu mett muy neex muy naqar dinaa la ko wax su si paree pare naa si du ma jàppal nit mhm. su fekkee Balla Gaye jàppal naa ko dara mhm. wala ma yéene ko dara lu bon yàlla naa ko si jiitu Mm-hmm. man doomu jullit la mm-hmm. Mm-hmm. te su waxtu jotee sama jëb dama koy jël di ko teg si jëb di sunu borom kon bon waruma def lu bon waruma ñëpp laa yéene gis nga ba si polémique ak Lac gis nga bërki dem moo njaay li ma wax ne Lac de Guiers woowu ma du ma wax si waxam wala dara ku nekk ñu koy yóbboo foo xam ne yeggu fa fekk Lamine da leen a bëgg a wax ni rek tey jii lu mu xamul cent pour cent mënu si xuus xuus boobu laa waxee loolu kese la mais Fadam moo ko jël yóbbu ko foo xam ne ni yeggu fa ak ay waxam ak yooyu <laughs> mais maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp man képp ku Lamine di wax loo xam ne dalaa déranger uh-huh. dama su fekkee dama tee yaakaar su ma waxee lu baax la mm-hmm. mais jàppewu ma ne lu bon man waxuma pour toucher kenn waxuma pour gaañ kenn waxuma pour blesser kenn macha allah maa ngi jéggalu ñëpp mm-hmm. di gërëm ñëpp di sant ñëpp mm-hmm. di gërëm encore une fois Kandji Production maa ngi koy gërëm bu baax sama xarit la sama nit la sama lépp la kooku maa ngi moom dañoo weesu lu bari. di gërëm Kéba sama waa ji maa ngi koy nuyu bu baax. di gë di gërëm cuun. maa ngi koy gërëm bu baax moom su ma nee cuun rek. waaw dina dégg waaw ma kumba waaw yaa ma gën a xam moom xam na xam na. di gërëm sama toma di gërëm ñëpp. di gërëm sama famille. samay soxna ñëpp maa ngi leen di gërëm bu baax baax. Mm. sama njaboot géeg yëpp maa leen di gërëm. Mm-hmm. di gërëm sama mag Xadi Fay. macha allah di jigéen ju mën góor nekk sa États-Unis maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm bu baax a baax ndax sunu mag la uh-huh. te bëgg nañu yërëm nañu te luñ nekk sooba ngoon mu nekk maa ngi koy ñaanal lépp lu mu bëgg si njabootam ak diggante moog jëkkëram sony bu yàlla na ko yàlla defal si barke Seydina Mohamed di ñaanal Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg uh-huh. di jaanal ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp sax uh-huh. di gërëm sama waaji Cheikh Ahmed tiijaan Mballo maa ngi koy gërëm bu baax moom mu nga nekk sa région de Kolda moom sama xarit la sama papa sama lépp la gërëm bu baax a baax di sant leen yéen ñëpp di leen gërëm encore une fois yéen ñii tamit waa site bi uh-huh. di gërëm waa Lamp Fall waa di gërëm Balla li mm-hmm. nga mooy kilifa kër gi mm-hmm. Africa Nongo mm-hmm. mooy ñu koy wax Nongo Gueye borom gàddiyel maa ngi koy gërëm bu baax a baax Balla Dieng si Pire Laay mm. maa ngi koy gërëm bu baax a baax ñoom ñëpp su ma limee rek damay jub di gërëm yaa oustaz ma la taxaw nga xam ne moom parking bi ay waxtaanu kaay maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant di gërëm doo ñun doomu géejawaay lañ waaw nañ ñëw te dañuy looloo dañuy location dañuy def lépp ngir lan bëgguñu lii rek lañ dul def tàllal loxo macha allah mais ñu ngi maa ngi ñaan képp ku ci bëgg rek Lamine Golo moom mu ngi nii si parking lay yëngu ci ay oto la location voiture mhm. njaay bi nag laa gën a sawar a xam ku ci bëgg rek yaa ma gën a xam macha allah sant naa ñëpp mhm. di gërëm a danaa leen parking Lam Fall moom mu ngi nii si deux voies notaires la nekk waaw ñaar la un ak deux mhm. waaw yaa ma macha allah parce que euh, yaakaar naa ne yooyu am na solo loolu ci dalal bi ñu ko